di leen dogal ngant bu baax a baax a baax nag bu ko defee kon ñu ñëw ci tontu yenn ci laaj yi nga xam ne moo fi rot incha allahu taala e, di jégalu mbokk yi bu baax a baax a baax di wax ne lépp luñ ci tontu it bu awee yoon ñu sant yàlla waaye lu ci dëng it ñoo ngi koy jégalu ñëpp bu defee lu ci nekk rek laaj bu ci nekk ñu fas yéene ci indi liñ ci jàng ci téere yi nga xam ne moom la ñuy jàng waaye nag ci mazhabu imam wa nafaana bi barakaatihi incha allah Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah ñetteelu laaj bi mooy yére yoo xam ne danga ko doon fóote saabu gannaaw ba léegi woo ko lan mooy atte ba ndax yére ya laab na wala déet waaw yére ya laab na saabu du sobe lañ waxoon kay mooy saabu moom munta munta dindi sobe ci misaal sa yére yi bu fekkee ne dafa tax sobe lu mel ne ay xeeta wala am saw boobaa moom mënoo ko fóote ndox moo am saabu rek mu daal di set boo ko njëkkee fóote ndox mu saabu it faaw dañ lay sant nga wut ndox moo xam ne ndox mu mel ne bi ngay jàppoo nga awalewaat ko ca kawam eh, waaw waaye bu fekkee ne nag sa yére yi dafa tilim rek tilim joo xam ne sobe bokku ca nga foote ko ndoxam saabu rek te lee ngi woo ko yére yooyu mën naa julli dara nekku ca dara nekku ca akay saabu moom mënta dindi sobe waaye moom ci boppam nag du sobe wallahu taala ahlam ñaareelu laaj bi mooy kiy julli eh, lu mel ni jaan wala luy lor dëgmal si ko comme ni nga wax sax yow melentaan nga wax waaye lu man di xew kiy julli luy lore dëgmal si ko lu mel ni jaan wala jiit sañ naa jël lum ko rayee gàllankoor ko ba du ko lor loole nag dañuy xool rek nam ko rayee bu fekkee ne bi mu koy rey da caa jëf-jëf ju bari ca rey ga maanaam sonn ci lool kon boobaa dañuy jàpp ne julli ga yàqu na ndax julli boo jëfee jëf yu bari ci biir julli ga julli ga da yàqu kon bu fekkee ne loola da koo dëgmal si mu daal di jël aw yat wala mu jël euh, lu mel ni lu ko mën a lor mu lor ko fekk bi mu koy jël nag yat da koo xaw na sori mu dox jëm ca wala da sëgg dóor ko ay yoon yoon mu doog a dee kon boobaa dañu jàpp ne jëf na jëf yu bari ci julli ga julli ga day daal di yàqu waaye nag bu fekkee ne jëflante gi mu jëflanteeg loola yàggut lu mel ni fi julli toog di taaya. aw yet nekkoon na ci wetam wala jaasi mu gis jaan ji wateesu jëm ci wetam mu daal di yëkkati lool rek daal koy dóor benn yoon mu daal di dee kon boobaa dañuy jàpp ne jëf ja bëriwut ci julli ga te yàqut kon lay lore dëgmal si ko ci biir julleem sañ naa jëflanteeg moom ci mu bañ koo lor waaye nag ndax julli ga dana yàqum du yàqu dañuy xool nu jëflanteeg loola bu fekkee ne jëf ja bëriwut daal nga xam ne lam ko lam ko dafa nekkoon ci wetam mu yëkëti ko rek door ko ben yoon loola dee mu daal di continuer ak jullem kon jëf bari wut waaye nag bu fekkee ne da koo dóor deewut mu continuer dooraat ko ñaar yoon boobaa moom day jàpp ne jëf ja bari na wala lam ko dóoree da ko xawoon a sori mu dox jëm ca loola ngir jëli ko wala loola da ko xawoon a sori mu dox jëm ca yooyu yëpp daal nañ jàpp ne jëf bari na julli ga yàqu na na ko tàmbaliwaat gannaaw bu noppee ca loola donte nag melentaan moom eh, yomb naa jëflante lool ba dama jàpp ne wërta coono yu bari ci julli ka ndax moom euh, lu ko rey daal yomb na te it euh, jàpp ma ne melentaan sax ak loram metti na metti goo xam ne war naa soxlaal kiy julli waaw lu ko sallax ba mu dem ne it yomb na waaye lu mën di xew daal att boobu ma la wax daal moo am ci kiy julli gis loo xam ne jàpp na ne mën na koo lor mu jëfandikoo moom hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki daara ji fasalu ahla dikri in kuntum laa taalamuuna maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp sëñ maam Serigne Diop maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di ñaan saa borom boole ñu defal tawféex ak sutura euh, sa laaj bi mooy imam boobu doon jiite timis bi muy jàng Fatiha mu waroon koo biral waaye mu juum yeelu ko euh, lan mooy àtte bi ci ni ko waxee gannaaw boo xam ne sëlmal na ñu fàttali ko ko waaye ñenn ña dañoo génn dem euh, lan mooy àtte ñi sujjootut ak ñi sujjoot ci gàttal rek mooy koo xam ne dafa war a jàng yelu dafa war a jàng biral mu juum jàng yelu kooku dafa wàññ dafa wàññi war a sujjóot xabla salaam kon balaa sëlmal bu taaya ba taaya mat balaa sëlmal na sujjóot ñaari sujjóot taayawaat doog a sëlmalaat bu fekkee ne nag daf koo fàtte daf koo fàtte ñaara ci mën a am mooy bi mu ko fàttalikoo ak bi mu sëlmalee yàggut nga xam ne dafa sëlmal tuuti rek jógut fa mu doon jublee moyut xibla daal di fàttaliku ne moom waroon naa sujjóot xabla salaam boobaa lay bi mooy nakk ko sujjoot waaw donte soppi ko ne ba'da salaam waaye na ko sujjoot ñaareelu ate bi mooy bi mu ko fàttalikoo waaye nag bi muy fàttaliku sujjootu xabla salaam bi dafa yàgg dafa yàgg nga xam ne génn na jàkka ja loolu am na ñoo wax ne dañ koy jàppe ak yàgg yàgg gañ wax it dañ koy tënk rek ci aada mooy loo xam ne daal koo ko wax mu ne laa diggante boobaak léegi yàgg na waaw ni ko nit ñi xamee rek nga xam ne diggante boobaak léegi lu yàgg lañ koy jàppe rek boobaa kon ñu jàpp yàgg na Hmm. léegi nag ku fàttali ko sujootu xabla salaam te diggante bi nga ko fàttali ko ak bi nga sëlmalee yàgg ñaar la bu njëkk ba mooy bu fekkee ne la waraloon sujootu xabla salaam ba day dafa matoon ñetti sunna nga bàyyi woon ci julli ga ñu ne la da nga sujoot xabla salaam nga war koo sujoot nga fàtte ko ba sëlmal te ba nga ko fàttalikoo mu yàgg boobaa kon dañuy jàpp ne julli googu yàqu na na nga ko julliwaat bu fekkee ne nga waroon a sujoot xabla salaam matut ñetti sunna day benn sunna wala muy ñaar. Eh, nga fàttaliku ko gannaaw boo sujootee nga fàttaliku ko gannaaw bo sëlmalee ba mu yàgg boobaa kon wax ne julle ga baax na te duñ warale ci yow nga sujoot nga fàttaliku ne benn sunna waxoon na la kenn du la ko sujootal waaye nag yalu ak béral dañ ko ci génne woon kon kii lim fàtte benn sunna la bu fekkee ne da koo fàtte ba julli gi yàgg kon sujoot ba wàcc na ko eh, te it julli gi baax na dara si ko ci. amaa nag bu fekkoon ne da koo fàttaliku ci ak jege mu sujjoot ko ànd yenn maamum yi fekk yenn maamum yi it génn nañ ba dem kon dañuy jàpp ne ñoom ñëpp it seen julli baax na kon jàppal ne maamum ya dem sujjootuñ ak ñi fi des sujjoot ñoom ñëpp seen julli baax na euh, wér na dara nekku ci lu ci mën di xew daal mooy nga xam ne sujjootub xabla salaam daal boo ko fàttalikoo ba mu yàgg ñaari at yooyu ma la wax la am mooy benn bi nga ko fàttalikoo mu jege ak bi nga ko fàttalikoo mu sori bi nga ko fàttalikoo mu jege moom lu ci man di am rek moo xam la waraloon sujjóot ba ñetti sunna la wala benn sunna la wala ñaari sunna la sujjóotal ko dara nekku ci sag julli baax na bu fekkee ne nag da koo fàttaliku te bi ngay fàttaliku sujjóotu xabla salaam gi mu yàgg kooka moom moo am ñaari teqale dañuy xool la waraloon sujjóotu xabla salaam bu fekkee ne mat na ñetti sunna ñu ne la sag yàqu na julliwaat ko bu fekkee ne la waraloon sujjóotu xabla salaam bi matul ñetti sunna matu ko kon ñu ne la sag julli baax na te sujjóot bi jéggal nañ la ko wallahu taala jërëjëf sëñ sëñ Diop laaj yi am na solo wax dëgg yàlla yàlla na yàlla fay xam naa loolu day masala moo xam ne fan yëpp boroom xam yi wax nañ ci lu yaatu yaatu euh, bisu 31 euh, bi wala bis yi ci des nga togg ci aw ñam euh, waaye lim ci wax nag ne day màbb say jëf loolu moom mosuma koo dégg fenn dégguma ko ci ñi ciy wax ñëpp dégguma ñu wax ci waaw loolu moom wax la joo xamante si ni wax ju wérut la amul dalil te jàpp ma ne waxi nit la it nag waxi dox la day màbb say jëf loolu mënut a màbb jëfi kenn lu man di xew daal ñoo xam ne feetu 31 décembre ak feetu 24 yi pas-pas bi ci yéefar yi am ba di ko feetu loolu moom lu ab jullit war a maandu la ndax nañ jàppee xiisa ak nañ ko lañ nañ ko waxee loolu demewut noonu euh, ñun bokkut ak suñu gëm-gëm niñ gëmee xiisa xiisa dañoo gëm ne ab yonente bi yàlla la waaye jaamu yàlla la waaye ndawam la jaamu yàlla la comme ni ñun ñëpp ñu doonee ay jaamu yàlla waaye ndawul yàlla la nag lu mu tànn yónni ko waaye pas-pas ya ca des ñoom ñoo ko moo tax bu ñu fasee loolu nag ba tax ñu di koy defal bis ñun dañuy maandu ci bis ba ngir seen pas yooyu mhm. waaye daal lañu wax ne togg ca nangam nangam day màbb jëf loolu moom wax ju bees la ci man xawuma ko te li ma gën a jàpp mooy wérut la ca des it mooy ndax bis yooyu ñu wax ne moom la gane jamono ak ngént li lu mel ni 24 bi ñu wax ne ci la juddu ak ngénte li loolu day ñu bëree bëri ci gëstukat yi bees yi dàq nañ loolu ne nañ loolu wérul nee nañ dat yooyu wérul tey it dat yooyu it nee nañ jeex nañ koo tëral ñoom ñi nga xam ne ñoo wax ne dat yooyu la dañoo dem ba jëmmi jamono ñu xalaat ko rek daanaka ay xalaat la yu ñu def rek daje dal di def ne kon dat bii la judd dat bii lañ ko euh, bis bii la judd bis bii lañ ko ngénte waaye dal wérul ne euh, ñii gëstu bokk wax nañ ne wérul ne ci 24 la judd wérul ne ci 31 décembre lañ ko ngénte waaw ñi koy wax it ñii ma waxee rek nii lañ ko defee waaw kon daal loolu saas la boo xam ne marbuut la hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki daara ji ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara te di leen jaajëfal di nuyu suñ maam sëriñ diob di ko jaajëfal laaji am na solo ñu ñëw wax ci liñ ci xam te gis ka ci téere yi bu ko defee kaneen ku am lu mu ciy waxit euh, lu mu ciy jubbanti mu jubbanti ko incha allah euh, ndax ku jënd yére yu bees dana ko war a laabal bu dee nag yére yi ñuy ñaw di ko jaay yu mel noonu du sàtt ci ku jënd ne faw da nga ko war a laabal ndax yi ci ëpp day laab lu dul ne da nga cee gis sobee wala ki la ko jaay wax ne la yére yi dafa am sobe boo demee ci xalil am na fu muy wax naan wala yusalla bi libaasi kaafirin bi xilaafi nasjihi wala bi ma yanaamu fihi musallin axar wala bi siyaabi gayri musallin illa karasihi wala bi mu jaasi fardi gayri aalimin yooya nga xam ne ay col la fay wax lam njëkk wax mooy deefut jullee ci yére ab yéefar yére yoo xam ne ak yéefar moo ko moomoon di ko sol may la ko nee na des si jullee lu dul ne danga ko laabal daat ne nag bi xilaafi nas jihi mooy ci wuuteeg ak ràbbam doo xam ne daf koy ràbb di ko jaay yére yooyu moom duñ sàrt ne ku ko jënd danga ko war a laabal ndax yooya mën naa bañ a taq sobe waaye yi muy sol moom yéefar bi moom dañuy jàpp ne la gën a naf mooy day sobewu waaye bu fekkoon ne njort nga ne amut sobe sax kon boobaa dana dagan nga jullee ci hmm. Hmm. waaye bu fekkee ne yoo xam ne moom yéefar bi sax laa wax day daf koy ràbb di ko jaay yooyu moom dagan na jëlee ci bii ndax sobe nut ci maanaam du caagi nañu wax ne sobe moo ci gën a nag mu ne wala yu bi ma yanaamu fiihi musallin aaxar ay yére yoo xam ne ka ko moom da ci nelaw rek maanaam buy tëdd la koy sol buy yeewoo summi ko yooyu buñ la ko mayee dañuy bëgg nga laabal ko doog koo sol ndax loolu la ci ëpp borom mën na caa bu ñu moytandi ku sobe ndax comme que du ci julli du ci jaamu yàlla du ci def dara da koy sol buy tëdd bu yeewoo summi ko ah bu dul ku baax dëgg-dëgg wala ku set wecc wecci eh, yooyee daal la ci gën mooy buñ la ko mayee it nga laabal ko doog koo sol hmm. Hmm. koo xam ne it du julli moom nga xam ne du julli sàmmonte wut ak julli ak yooyu laab it buñ la ko yooyu it bëgg nañ nga laabal ko doog koo sol lu dul ne fa tolloog bopp ba ak fa ca des waaye fay tolloog fa nga xam ne sobe man na faa taq daal loolu moom bu fekkee ne yére yoo koo xam ne du julli du sàmmonteeg sobeeg laab yooyu moom bu ko mayee loolu bëgg nañ ko laabal ko yére koo xamante si nii it xàmmeewut attey sobe yeeg li sobe woog li laab xàmmeewu ko kooku bu la ko bu la mayee yéreem yooyu yum daa sol moom it ndax moom xàmmewut luy sobe xàmmewut lu dul sobe sobe mën na koo tax te doo xam ne lu lu sobe kooku bu doo ko mayee it euh, la gën mooy bala nga ko sol nga laabal ko rawatina fa tolloog sawukaay ba yu mel noonu kooku bëgg nañ bala mayee yéeréem yooyee mu daa sol moom mi nga xam ne xàmmewul attee laab nga laabal yéeréem yooyu doo koo sol waaye daal lu wuuteeg loolu moom gisuñu ko ci euh, liñ jàng yére yi nga xam ne moom la ñuy ñaw di ko wékk di ko jaay yooyu ku ko jënd mën nga koo jullee saa nga di ko laabal ndax la gën a not mooy sobe du ca am la gën a bëri bu fekkee nag kala ko jaay wax na la ne ah, am na sobe kat ndax aw fas romboon na di saw mu tës ci kon nga war koo laabal boo ca gisee sobe mu leer na ne sobe la nga war koo laabal waaye lu dul loolu boo ko boo ko jëndee noonu rek moom solal julli dara la nekku ci sa julli baax na dara nekku ci ndax la gën a not mooy du am sobe li ma ko waxee yéere yéefar yoo xam ne daf ko daa sol yooyu lañ la wax ne la bu la ko mayee bala nga koo jullee na ko laabal mm-hmm. ndax yooyu sobe moo ci gën nag waaye bu dee lum ràbb di jaay moom yéefar bi sax loolu sobe gënu jaanat man nga ko jullee te doo ko laabal wallahu taala ahlam ci laaj boobu asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Basiru Mbay maa ngi lay nuyuwaat yoonu ñaareel di la ziar ki génn àddina day ñu muur ko ku ñëw muri dem loolu de dama xamut ñan la euh, dama ragal ne nag muy aaday ñaneen muy aaday ñaneen waaye lislaam moom xamut loolu ndax bu fekkee ne aaday tubaab yi la yooyu moom ñooñu moom seen aadala ak seen diine bokkuñoo ñoom diine waruñoo bokk ak ñoom it ay aada euh, ndax ñoom am na yu bëree bëri lu def ci seen ay ay faatu yoo xam ne daanaka rek euh, da ngay waar comme niñ koy gisee ci yenn kii ba ci jullit ñi sax am ñoo xam ne dañuy faatu ci jullit ñi waaye xëy na dund gu ñuy dund ak tubaab yi wala euh, taq guñ ci taq tax yu bëree bëri ñu leen koy defal yoo xam ne rek xëy na aada la. yu bëree bëri nag mën naa bañ a yegg ci xaraam waaye daal yu bëree bëri lislaam xamu ko lislaam daal ku fi jóge moom lim ci santaane mooy ñu waajal ko jébbal ko boroomam bu fekkee ne muri nag aajo la baax na waaye bu fekkee ne nag du aajo euh, dañ caa jublu yeneen loolu daal li ci ëpp yeneen aada lay doon daal xam naa ne waaw li ci li ci ëpp yeneen aada lay doon ñoo xam ne dañ koo aadawu ba sax dana am ay tur yuñ koy tuddee euh, di ko jëfe hmm, waaye loolu daal Euh, lislaam moom wi ci bëree bëri xamu ko te du aadaam incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, waa kay sama sëriñ sëñ Basiru Mbay maa ngi leen nuy di la ma ñëw ci sa laaj bi. bu fekkee ne li muy laaj lu aju ci wàllu naafila yi day naafila yi dafa am ay xeet comme li mu wax ne naafila guddi gi ndax dafa am waxtoog yu mel noonu. Euh, awala naafila yi daal dafa am ay xeet ndax am na ci yoo xam ne moom la ñu tuddee mooy yi ànd ak julli juróom yi yooye nag. mooy yii bala ngay julli tisbar nga naafila ñent rakka ñaar selmal ñaar selmal gannaaw tisbar nonu ñent rakka ñaar selmal ñaar selmal hadith bo xone ci daraja ay ki ngeenel bala nga julli tàkkusaan naafila ñent rakka ñaar selmal ñaar selmal gannaaw takusan ba timis nak ci yoonu Malik amul nafila gannaaw bo sëlmalee timisit it bëgg nañ nga nafila bo mënee ñaar rakka baxna bo boo ñent baxna juroom ben nak mo gëna bax waaw kon timis boo ko jullee foofu lu baax a baax la ci naafila boo mënee ñaar sëlmal ña euh, boo mënee ñaar rakka baax na boo mënee juróom-benn it moo gën a baax xam naa it bis mën nañoo ñëw wax bu ci nekk ñu wax ngëneel yi ci wàcceeg yooyu waaye ñu waxal la noonu rek mu gën a gàtt. gannaaw boo jullee gee nag moom bu la neexee naafila lu mu gàtt gàtt ñaari rakka teg ca wetar moom lu mu gàtt gàtt na nga def ñaari rakka maanaam mu tudd safa. nga tegaat ca beneen rakka boobu tudd wetar muy safa ak wetar moom lu am solo la boo ko manee ba man ko it loo mën a jiital njëkk safa ak wetar nga def ko waaye wetar moom luñ sopp sopp la maanaam sunna mu akkada la mboolem fi naafile wetar moo ci gën a feddali ko moom wetar nag bëgg nañ boo koy def nga jiital lum gàtt gàtt ñaari rakka waaye tëb rek def rakka wetar bi moom dañ koo sib kon nga jiital ñaari rakka doog caa wetar ñu tuddee ko safa wetar ba tey nag boo mënee def dolli ca safa ak wetar loolu mooy sunna yonente bi alayhi salaatu salaam sax na ca xadis yonente bi alayhi salaatu wasalaam musu koo weesu moo xam ci koor la moo xam ci lu koor kon loolu ku ko man moo gën maanaam def fukki rakka teg ca safa ak wetar wala nga def fukki rakka ñaar teg ca wetar hmm. Hmm. naafile guddi gi nag lu guddi gi gën a sori mu gën a baax lu guddi gi gën a sori mu gën a baax bu fekkee ne daal euh, ragal nga ci sa bopp ne yow da ngay teel a nelaw kon boo julee gee ba noppi man nga nafila lo man bo noppé tek ci wétar dal di tëdd nak bu suba jam bu fekké ni it da nga yéex a nelaw ci guddigi lu guddigi gëna sori rek nafila di gëna bax lu mu gëna fajar gëna bax euh ndax la hadith ba wax ci euh, nafila guddigi rawante na it nafila go xamné da ngay tëdd nelaw ba ci guddigi nga jog lolu mo tudd tahajjud khiyamul layli moy julli ci guddigi waye tahajjud nak moy julli guddigi go xamné nelaw da ko jitu kooka nak lu bari ngeenel la ñoom la borom bi tagg ci alquran tatajaafi julu junubuhum anil madajihi yad'una rabbahum xawfan wa tamaa kon naafila guddi yi daal noonu la demee loo ci man rek baax na boo julee gee bu neexe neexee mën ngaa naafila waaye nag euh, naafila yi moom lu ci gën a lu guddi gi gën a sori mu gën a baax lu ci gën a jege fajar rek gën a baax gën a sell incha allah waaye guddi gi yëpp moom waxtu naafila la. Hmm. xam naa kon ñu tegaleel la melokaan ba nga jàngoon ci tasawuru sixaar rek nga xam ko incha allah mooy sëñ bi daa waxoon ne da ngay ci raxas say loxo ñetti yoon bala nga koy dugal ci ndab li tàmbalee as euh, boo raxasee say loxo ñetti yoon après nga euh, raxas li tàmbalee ci sa jumbax ba ci sa bëti woom ba tollee ci raxas sa sabuka sa sawukaay foofu nga yéenee waaw foofu nga yéenee jukki li tàmbalee sa jumbax ba ci sa bëti woom daal di koy raxas boo noppee nga jàpp njàppum benn benn. boo jàppee jàppum benn benn ba noppi nga raxas sa bopp xaleel karaw gi bu baax a baax ba ndox mi dugg ci biir fu ne ndax bopp bi dafa war a tooy xëpp mhm. ndox mi daa war a dem ba laal deru bopp kon bu fekkee ne sa karaw daa bëri dana laaj nga xaleel karaw gi bu baax a baax a baax a baax boobaa duñ la limital ne da ngay raxas ñetti yoon bu fekkee ne raxas nga benn yoon mu tooy ñaareel ba dañuy bëgg nga continuer ba ca ñaareel ba waaye boo raxasee ba ñetti yoon te tooyit it faaw nga continuer ba mu tooy rek waaw kon foofu moom faaw mu tooy rek incha allah. ba ci topp boo noppee nga dëngal sa nopp ndeyjoor raxas ko dëngal sa nopp càmmoñ raxas ko nopp bi it boo koy raxas doo jël ndox mi sotti ci biir ndax loolu mën naa indi ngaañ waaye da nga koy dëngal nga xam ne boo raxasee li ngay raxas day tuurwaat ci suuf nga njëkkee sa loxo sa noppum ndeyjoor boo noppee jàll si sa noppum càmmoñ boo noppee nga raxas ak doq boo raxasee sa doq ba noppi nag da ngay jukki li tàmbalee sa mbaggum ndeyjoor ba ci sa bëti wóom eh, sa wetum ndeyjoor boo noppee jël wetu càmmoñ gi noonu di tàmbalee ci mbagg mi ba ci bëti woom bi nga raxas ko boo noppee nga daal di euh, raxas li tàmbalee ci oom bi ba ci dajoor yi waaw njëkkee dajoor bi boo noppee teg ci càmmoñ bi waaw bu fekkee ne ba ngay jàpp raxasaale woon nga say tànk kon baax na bu fekkee ne raxasaale woon say tànk da ngay continuer raxas say tànk te jàpp mooy ba ngay jàpp nga continuer woon raxas say ba mu daj boo noppee nga sa ginnaaw raxas sa biir raxas sa dënd mu jeex loolu mooy melo nga xam ne wu neex a xam la Euh, te moo ñëwoon yaakaar naa ci te tasawudu sixaar incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, sëñ maam Serigne Diop maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara. waaw euh, sangu farata day noonu mu ko mbokk mi nu ko déggee wér na noonu la demee bu fekkee ne am nga ndox mu mel ni miñ la waxoon nga wut ko dem ci barab bi ngay sangoo nga tàmbalee ca kaw raxas ba ci suuf te fépp daj rek. boobaa am nga cangaayal farata nga yéene ca sangu farata am nga cangaayal farata melo wañ la waxoon nga tegalee ko te moom nga jàngoon ci tasawudu sixaar melo dañ koo sopp rek melo dañ koo sopp rek waaw euh, waaye boo defee noonu rek am nga cangaayal farata xam naa ne wuute googu yi muy wax na ne téere yi bu bu bu fekk mën na ma ci andil missal ma xam ndax bunt cangaayal farata dafa bëri ay bunt farata yeeg sunna yeeg yu ci aj yooyu dañ koy jàngale ci téere yi damaa xamul nag lan lay wax naan téere yi dañ ciy wuute loolu moom laaj na missal bu ko defee ñu gën ci am ay leeral yu gën a yaatu incha allah waaye daal loolu yi mu wax ci sangu farata noonu mu ko déggee noonu rek la demee boo amee ndox mu mel ni miñ la waxoon nga wut ko rek boo raxasee ca kaw ba ci suuf te lépp tooy rek euh, nga yéene ci sangu farata rek daan ngay am sangu farata waaye nag melokaan wa nga jàngoon ci tasuur si xaar moom moo gënoon a baax melokaan wa moom boo ko mënee moo gën a baax waaw ma ñëw ci ñaari ci des incha allah muy man yi muy mas yu ak wadd yu yu moom am ndox la moo xam ne euh, dafa maanaam dafa layoq maanaam tëlut comme ni mën yu tale waaw te buy génn it du jëñu niñ ko waxee kon moom mën naa génn euh, te doo ko yëg hmm. Hmm. mën yu moom laa waxoon ne ndox mu tal la moo xam ne buy génn de jañu xetam mel ni xetu tóotóoro tàndarma euh, ak yooyu ma la ci waxoon waaye masi moom ndox la moo xam ne buy génn euh, du jañu te it layox la dafa tëluwut ne mën yu tale hmm. moom nag bànneex bu ndaw moo koy génne boo déggee bànneex bu ndaw mooy bànneex boo xam ne li mel ni laalante ci euh, déedéet lu mel ni xalaat jigéen wala di ko xool xool bu yàgg bànneex bu ndaw daal mën naa génne masi yu moom masi yu nag bu génnee du waral sangu farata waaye day toj am njàpp day toj am njàpp te bu génnee ci sawukaay góob bi dañ naan ko na raxas la fa safukaay ba tàmbalee fam saxee ba fam yem donte takku ca sax moom mës yi loolu dañu ko caa digal bu génnee daal euh, ci kim génne góob sawukaayam fam saxee ba fam yem donte takku ca hmm. te booy booy it mu ànd caag yéene donte ànd caag yéene ja am na déng-déng hmm. am nañu ko ca waral kon mës yu mooy ndox moomu njàpp rek lay toj. ak waral kooka raxas sawukaay ba fam saxe ba fam yem hmm, wallahu taala alam bu ko defee ma teg ci bi ci topp mooy wadd yu euh, it ndox la moo xam ne euh, mu la moom euh, day génn ci sawukaayu góor gi li ci ëpp gannaaw bu tuuree ndox ba tuur ndox ma jeex ndox moomu daal di génn moom wadd yu bokk na ci sabab yi tax mu génn it mooy kooka seere woon am ay fan demut ca wanago wala mu yanu woon lu diis ba yenni ko ko wala mu tawatoon ba wér loola mën naa tax waddi yu génn mooy ndox moomu moom waddi bu génnee du waral sangu farata waaye am jàpp lay toj am jàpp rek lay toj nga war koo raxas moom nag duñ la euh, fu mu la taq rek lañ lay raxasloo bokkut ak mesure bi nga weesu léegi ne bu génnee dañ lay raxasloo sawakaay bi fi mu saxee ba fi mu kon loolu moo aji ci ñett yooyu asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ maam Serigne Diop ñoo ngi lay nuyu di la ziar ñu ñëw ci laaj yi incha allah laaj bu njëkk bi di wax lan mooy euh, mani ak mas ak wadd waaw ak lan moo ci waral sangu farata bu fekkee ne dégg naa ni nga ko laaje incha allah bu ko defee ñu njëkkee ci mani yu moom ndox la moo xam ne mu tal la euh, moo xam ne buy génn day jañu buy génn day jañu lii waral ak génnam it mooy sababu bànneex bu mag lu mel ni bànneexu jonjonte ci yaram mën na koo génne jote it góor ak jigéen dana ko génne ak yu mel na noonu bànneex bu mag daal sababu bànneex bu mag daal mooy génne man yu kon loolu mooy xam rek mat ndox la nee naa la moo xam ne dafa tal buy génn day jañu am ñu koy nuróol ak xetuk mooñ bu demee boo wow it am ñu koy nuróol ak xetuk tóotóori tàndarma ci ña ko xam waaye lu man di xew daal li koy génne mooy sabab bànneex bu mag moom nag ñu njëkk a wax abaateem bu génnee dana waral sangu farata maanaam ci kum génne bu fekkee ne bànneex boobu moo ko génne mel ni bànneexub joteb góor a jigéen wala bànneexub jonjonte ciw yaram yooyu bu fekkee ne moo ko génnee bu génnee dana waral sangu farata hmm. bu fekkee ne génn na nag waaye àndut ak bànneex wala ànd na ak bànneex waaye bànneex ba ko daa génne génnewu ko loolu mën naa nekk ci bu fekkee ne maanaam euh, man yu mi dafa génn naanal naan bu fekkee ne man yu mi dafa génn te la ko génne du bànneex lu mel ni waa ji daa yenu woon lu diis wala lu metti dal ko sax mu génne maniyu waaw loolu lépp mën naa nekk kon boobaa bànneex génnewu ko du waral sangu farata njàppalee toj bu fekkee ne bànneex a ko génne waaye du bànneex ba ko baaxoo génne lu mel ni moom dafa am ay góom yaramam di xasan mu wokk ko mu neex ci moom mu yëg ci bànneex dal di génne mani yi yooyu misaal yu bari la lu ci mën di xewit boobaa du waral sangu farata waaye dana toj njàpp ak fu mu ko taq mu war ko raxas kon daal maniyu jàppal ne mooy loolu noonu ma la ko waxee jàppal ne it bu génnee ci sababu bànneex te bànneex ba ko daa génne génne ko mooy bànneex ñu ma la ko waxee góor ak jigéen wala laalante ci aw yaram wala yu mel noonu bu génnee ci bànneex boobu moom dana waral sangu farata bu génnee nag te bànneex génnewu ko wala bànneex ku génne waaye du ba ko daa génne boobaa du war a sangu farata day tëj njàpp rek ak fu mu taq mi war koo raxas wallahu taala ahlam